Eh, sëñ Saliou ture ñu ngi lay euh, nuyu di la bu baax mu mel ni liggéeyu kër Serigne Touba gi nekk Argentine dox nañ ko ginnaaw bi ko murid di fayee ci lu yàggul dara sa Abo Moussa Mouhamad Al Fadel daal di woon teg xeer bi ci dimanche ji nag mbooloo mu bari ñu ngi fa di fa ay ay liggéey mën nga ci dellu si ak ñun. sëriñ Gora ni ko waxee noonu la fii ci Touba Argentine fi liggéey bu kër sëriñ Touba Xaadimu Rasuul gi nga euh, euh, euh, bi nga xamante ñoo sëriñ sëriñ Abo Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fara teewoon na fi daal di leen tegal xeeru liggéeyub kër sëriñ Touba Khadim Rasul daal leen i ñaaxaan nag mboolem taalibe nag jamono ji ñuy wax ak yéen nag amuñu génn yitte lu dul liggéeyub kër sëriñ Touba googu daal di sotti waaye nag ñu ànd ko mboolem euh, fédération bi nga xamante ni ñoo jiite liggéeyub kër sëriñ Touba gi fii ci Touba Argentine di ci soññiwaat mbokki taalibe bi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Touba Argentine di leen wax ni sax fukki fan ak juróom dimanche bu jot fas yéene noo teew foofu ca kër sëriñ kër sëriñ Touba gi ngir fas yéene yeggale liggéeyub kër sëriñ Touba Khadim Rasul fii ci Touba Argentine sëriñ Góora kan bu fekkee amu benn laaj boo xamante yaa ngi ko koy laaj mu nekkoon seen bokkam taalibe Serigne Saliou Touré fii ci résidence Cheikhouna Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rassoul pour seen télévision Touba Argentine TV. Eh, xam naa dama lay bàyyi nga nga dallu yow da ngay borom Pastef te xam naa peel yooyu may seen ak ak yooyu xam naa ñàkkul ni sax da nga ci da nga tàngal sa yaram bu baax moo tax rek kon xam naa dama lay bàyyi nga dallu ñu wéy rek eh, di la xaar ci liggéey yi nga xamante ni incha allah daañu ko fa wéyal ci fukki fana juróom yu nekk murid yi dem fa ngir rek daal di fay wane seen pësteef kon rek mu nekk loo xamante ni mbégum jullit yëpp la rawatina it euh, taalibe yi mi ngi noonu suñu suñu mbir la kër Serigne Touba def nañu fondation bi door nañu liggéey bi lu bari nag ci xaalis moom moo fay dem kon bay boo rek benn murit bu nekk fàggu jàpp ne rek la koy doxal yow yaa ko war a def di gërëm nag bu baax jëwri yi sëñ Yankow ba ak sëñ Bamba Maroon sëriñ Maam Cheikh no ak mbooleem ñoom sëñ Baye Cheikh ak sëñ Moudou Sène ñoom wax dëgg yàlla gis nañu poste yi sëñ Assane Baye ak mbokk Baye yi ñu ngi leen di gërëm bu baax euh, di leen sant kon incha allah da ngeen dund lépp la nga xam ne moom mooy tukkee ci liggéey Kër Sëñ tubaab ba incha allah ñu koy eggalee lu fa xew ak Touba Argentine TV